Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yi nga xam nga xam ne nag moom la xëyee ñu ci bëri daal di koy dafa song ne nag di njiitu réew mi Macky ne nag moo di procureur yéenekaay koy kàddu yi ne ko di pétrole bee ñu xamal ne moom Ousmane Sonko koy dafa fësal ne ko di jee di ñu xamal ne kay moom Ousmane Sonko kay dafa song ñi nga xam ne nag a moom la doon amal moom Ousmane Sonko am meeting la ko jàpp moom Ousmane Sonko di xam ne ne maanaam daal bu fekkee le procureur bii ak Macky ci la ñuy mu leer daal loolee daal maanaam mbirum pétrole mi loolee daal bu yeboo ñu dallu te xam ne mbir la moo xam ne du leer ndax ñi nga xam ne nag ñoo nekk ñu nguuru Sénégal jamono ji awuñ yoonu leeral lépp loo xam ne nag nag ko di xam ne Sénégal kay jamono ji tey nag bis boo xam ne dañoo war a génn laa la wax dañoo war a génn ndax xaalis boo xam ne sàcc dañ ko ci réewum Sénégal maanaam daal gaz bi ak pétrole bi nga xam ne daal moo am ci réewum Sénégal te ñu bëgg ko luubal li nga xam ne moom la war a jural réewum Sénégal mu ëpp mu li nga xam ne daal Coupe d'Afrique bi moom la koy jural kon nag lën bu ñu lëndëmal xeli askan wi naan Sénégal ni yegg la ay coupe d'Afrique ak yu kenn xamul génn manifester du samay kàddu kàddu Ousmane Sonko la kase na kase ba na yàqte li nga xam ne daal mooy kàddu alaaji Amadou Kassé yi nga xam ne yëkkati yoon na ko source a du ñu xamale Aïda Mbodj ci at yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci loolu Aïda kay dafay xam ne ni mbir la moo xam ne daal dañu ko war a topp topp juróom Sénégal ba mu leer ak lu yàgg-yàgg mbir moomee mbir la moo xam ne daal danañu ko leeral ak moo ne ci nga bi Abdoul Mbaye di xam ne ne maanaam daal jamono ji ki nga xam ne nag daal li nga xam ne nag koy luubal ci réewum li Sall mun ta waat nekk weddi na loolee waaye léegi dañuy laaj ndax Aliou moom ba xam maanaam daal xam xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllum mbay wala sax wàllum pétrole yéenekaay bi dañu xamal ñi a xamal ne Mouhamadou Aziz bi nga xam ne nag moo jiite Mauritanie yéenekaay bi di xamal ne kàddu yi leeral li indi jëmale ko ci lépp loo xam ne nag jëm na ci pétrole ba gaz bi ci diggante Sénégal ak Mauritanie li nga xam ne daal dañ ko doon wax moom Aziz bu Mauritanie di wax ne kàddu yi nga xam ne daal dañ Sénégal bëri na ci loo xam ne du dëgg waaw du dëgg kay waaw maanaam daal du dëgg lañ cay wax bëri ci loo xam ne du dëgg daal liñ ciy wax naan maanaam daal xaalis bu toll noonu ci diggante Sénégal ak Mauritanie loolu daal kàddu la yoo xam ne du dëgg ñu daal koy jeexal ak tàggat yaram yéen bi bi des stade xamal ne kay tey jii la d'Afrique bi di tàmbali Elhadji Ousseynou Ndiaye